asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 9 février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey fa mu xëy ñëw ci xëtam mu njëkk maanaam diggante ki nga xam ne moom moo di Modou Lo la roi des arènes ak Balla Gaye mi fi nekkoon roi des arènes maanaam Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi di sunu làmb nag dafa ñëw tey ci ñoom ñaar jàngat leen daal ci seen biir carrière jàpp na ne daal kii nga xam ne moom moo di Modou Lo moo gën a titré ka nga xam ne moo di Balla Gaye maanaam daal moo këppale ay ndomb ci biir làmb ji donte Balla daan na ko ñaari yoon sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko indi ñu ca loo xam ne daal jot na caa am mu mel ni ki nag wàllum ANPS bokk na ca ay vainqueurs yoo xam ne ni Modou nekk na ko ak ay tournoi wu kalaf yoo xam ne daal maanaam yëglikaay bi xëy na tey jàngat ko boole ko fa nga xam ne fa leen jaar daal jàpp ne kii gi muuru daal moo gën a tiitare ka nga xam ne moom moo de Balla gay numéro sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom muy Lac de Guiers numéro 2 kay wax nag moom moo di manager ba ko yor di Mohamed Ali Ali daal la mu xëy xam ne daal ne seen diggante ak Eumeu Sène daal la jàpp ne fi mu nekk nii moom lañ ca bëgg mooy jeexal ak moom maanaam daal daal di bëre ak moom tàqali ko ak moom wëri leneen maanaam moo tax mu xam ne ne daal li am ba des nañ moom Ali daal jàpp na ne le 4 avril moom pare nañ fi mu nekk nii daal jatu ni ab soccet ngir rek bëri ci ak Eumeu Sène jeexal ak moom wëri leneen ñeneen ñoo xam ne ni moom ay xale lañu nekk ci làmb ji wane seen bopp muy ay doomi Pikine di ay doomi mbër muy ka nga xam ne moo di amaa Balde doomi Fallaye Balde Boy Niang doomi Dégol yëglikaay baa xëy ñëw tey toppal ñu leen mu mel ni ki nag ñoom ñaar daal loo ci mën a dégg daal wane nañ seen bu baax a baax a baax ca la nga xam ne nii moom moo di làmb ja mu mel ni ki daal ñaari xale yooyu moom su bëggee dégg dëgg moom Ama Balde moo doon Fallaye Balde ma nga xam ne moo di bàyyi ba borom 137 combats ya waaye ka nga xam ne nii moom moo di booy Niang tamit wane na boppam bu baax a baax a baax ci digganteem ak ay mbër yoo xam ne jaar na ci ñoom ak ñoom ci ay sàq wala mu aw fu mu jaar ak ñoom bokk na ci Baye Mandione ka nga xam ne nii moo di Garga Mbossé ba si saa Thiès yëglikaay baa xëy ñëw tey toppal ñu ñaari doomi pikin yooyu muy Ama muy Boy Niang keneen koo xam ne nii moom xëy na tey wala ñeneen ñoo xam ne ni moom la ñu fas yéenee def mooy li olof naan mbooloo mooy doole muy waa yoof ya nga xam ne nii daal ñoom ñoo di écrit yoof mbooloo ak waa yoof daal boo bëggee dégg-dëgg yëgl bi ne daal fi mu nekk nii moom boole nañu seen bopp daal dal di def l'union fait la force na ko tubaab bay waxe mbooloo mooy doole léegi daal amatul benn wala ñaari écrit léegi kon la fa nekk daal mooy benn écrit daal moo fa am ka ko jiite nag moom moo di Baytiir Ndóor Baytiir Ndóoy moom la ñu élire def ko président ba moom fi mu nekk nii moom moo jiite écrit ba nga xam ne léegi mooy nekk yoof maanaam écrit yoof mbooloo ak écrit yoof daal la ñu boole def ko benn écrit yëglikaay baa xëy ñëw tey wax ak moom wala boog seq ak moom ay wax Tapha Mbeur moom xëy na di wax combat bi ku gën a marqué ci dundam nena na diggante Modou Lo ak Eumeu Sène daal da bokk na ci lamb joo xam ne ni joko marke la lool lool lool moom Tapha Mbeur moo xëy tey di wax lu mel ne ki noonu ñii moom dañoo ñàkk kañu ñàkk moom moo di père Aline Diop muy waa Lansar yëglikaay bi xëy na tey seq ñoom wax muy fëgala ak super étoile ki nga xam ne nii moom moo di super étoile moom moo fëgala ñoom ñaar ku ne xam ne ne ñu ngi ca réewum États-Unis bu dee fëgala la moom la mu xëy xam ne daal ne na ki nga xam ne nii daal moo di père Aline mi ñu ñàkk ñoom boo bëggee dégg dëgg ne na seen carrière la mu ca joué wala la mu ca def ba tax tey ñu yëg si fi ñu yëg si bëri na lool lool super étoile tamit lu mel noonu la wax ne saa yu xëyaat moom per Aline Diop daal la muy gis daal mooy nu muy def daal écrit lamsaar nekk ca kaw a kaw a kaw loolu yëglikaay ba ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb ak làmbi simple fa nga xam ne nii daal moom moo di ca Gàmbi bu bëggee dégg-dëgg daal tournoi ba fa bi nu génne daal ka nga xam ne nii moo di gànja faama moo jël lese ba Batista numéro de jël luur ba yëglikaay bi xëy na tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer dem record record tamit ñëw na daal di wax ci écrit Grand bi nga xam ne nii nii maanaam juróomet yi ñu génne daal Grand Yoff mbooloo nan ca taxaweek 53 defet yoo xam ne am nan ko yëglikaay bi ñëw na ca ak 66 victoire yoo xam ne jot nañu ko dajale yëglikaay bi di sunu làmb wala boog record moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu ci yëgri ba nga xam ne moom moo di Grand Yoff mbooloo keneen koo xam ne nii record xëy na tey dinu wax ak moom muy pakala pakala moo xam ne daal yëglikaay bi jàpp ne talent la boo xam ne daal bu làmb ji soxla woon la wala boog làmb ji soxla na ko lool donte nag maanaam daal ay mbiram nañ ko doon xaare doxewu na ak la nga xam ne jot na koo def ci li nga xam ne moom moo di làmb ji bi moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu téléspectateur u Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaxu ci yéen di leen wax ne namoon naa leen lool lool lool xam naa namoon ngeen waaye nag maa leen raw li ko waral nag mooy weekend bi moom dañoo bougé woon xam nga rek demoon seeti famille bi daal waaw nemmeeku ji leen des fois da si baax demoon village fële ca Bawal ak yaay waaw di ci profité di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaye tamit balaa may sori rek faw mu nuyu waa ak yaay nga xam ne fa la jóge waaw di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci ñoom di profito di leen jaale seen doom jooju nga xam dañ ko ñàkk mbërki dem muy aadama seen ko jaale waa ak yaay yépp yépp doon sëy fële nga moom mooy ca ndondol seeseen ko jaal waa ndondol yépp nga xam ne fa la juddoo yaroo fa yàlla dogaloon xam ne moom moo di ndondol di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare tamit ba mbomboy boobu tamit duñ ko sori mbomboy reefan maire Dibou Sarr di ko jaal ña nga xam ne ñoom ñu ay doom Sall Thiam ñoom ndongo Diouf ak képp koo xam ne yaa ngi dëkk foofu dem mu génn àddina démb yi ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana di ko jàll ay gorom ñoom Awa ak maam Diarra ak képp koo xam ne daal yaa ngi wuyu tëkk ci tund mbomboy woowu ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale di jaal waa Lamsaar tamit Père Aline Diop su que loolu ginnaaw la am ñu ñaan yàlla jéggal ko xare ko aljana moom tamit nekkoon koo xam ne royukaay la woon ci làmb wax dëgg yàlla ci yaram discipline ak encadré ay athlète am defe naa ne tey Lamsaar bu yëgsee fii muy Max Mbargane muy moom muy Cheikh Tidiane Niang muy président bi defe naa ñoom ñoo ci bay seen waar ba tax tey écrit bi yegsi bi ba formé ay mbër yoo xam ne tey dañuy fay ko ay millions te defe naa loolu ku yaatuwul xol rek mënoo encadrer ay nit ba am dépense bi ñuy yóbbu seen kër kon Père Aline Diop yàlla na ko yàlla jéggal xare ko aljana moom bépp bindaafoon boo xam ne fekk na ko ci suuf barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw di ko ñaanal bu baax a baax di ñaanal képp ku génnaa din rek tey nag sunu làmb xota mu njëkk moom defe naa Modou loo moo fa nekk ak Balla waaw lu mu jàpp ne daal bu dee ay tiitre la Balla donte daan na Modou ñaari yoon mais sunu làmb gis na ne ah Modou ko ëppale ay titre am na yu mu ca jot a jukki bokk na ci meilleur lutteur ANPS bi vainqueur kalaf beeg yu mel ni ki noonu daal gis na ni Modou moo gën a titre yi waaw alors nag mooy sport ah waaw loolu moom mooy yoonu wi sport xam naa ci titre yi ay yu mel noonu lay doon ak yu mel ni ki noonu waaye bu ñu demee ci côté bëri bi Balla daf ko daan deux fois muy ñoo xam ne daal ci mën ki gën a tiit rek ki daan deux fois lu mu ci mën a doon ay royukaay lañ tey ci mbër yi mbër yi ne nga xam ne dañu nekk ci toll ci seen carrière tey di ay xale parce que li tax mooy yàgguñu ci làmb kii 2005 la muy Balla mu du ñëw 2006 defe naa tey fi ñu toll ci làmb ak personnalité bi ñuy incarné defe naa képp kuy xale nekk jeune nekk ci làmb war nga leen mën a roy parce que fonk nañu seen carrière ba tax ñu yegg si fi ñu yegg si tey bi ci des mooy tamit ay nit yu am personnalité la ñu waaw ñàkkuñu fulla loolu moom Sénégal yépp seetlu na ko si ñoom ñaari mbër muy Balla muy Modou moo tax tey fii ñu toll ni tey ñu yegg si fa te itam déggoon naa waykat bi Youssou Ndour mu ne Dakar sax boo koy jaay faw nga am fulla soo ko defulee rek gomis ma ñam moo koy jeexal muy ñaari ñoo xam ne ay royukaay lañ ci biir làmb waaw Hmm, parce que ci ñoom la yëglikaay bi ñëw tey ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi keneen koo xam ne tamit royukaay la ci làmb ndékk ci géejuwaay googu di di la ne daal ki ci Eumeu daal dañu bëgg a jeexal ak moom maanaam le 4 avril ñoom pare nañ pour bëre ah nañ yàlla nañ yàlla dimbali nag balay le 4 avril sax làmb ji mën a ubbi ba combat yi déclenché ba buñ ca yeggee buñ ca waree bëri ñoom ñaar ñu bëree ca parce que itam làmb ju neex la joo xam ne daal ah troisième combat boo xam ne ñu ngi xool fan la wane di mujjee kii itam ci diggante Eumeu ak Lac beneen wala yeneen xale yoo xam ne ñoom it wane nañ seen bopp li mu wax sànq si Modou Lo Balla Gaye rek ñoom itam ah sori foofu muy Ama muy booy Niang parce que yàgguñu ci làmb te ay héritier seen way jur lañ ci làmb kii doomi fàllaay la kii doomi dégal waaye wax dëgg yàlla wane nañ seen bopp ba tax na tey tamit am na fu ñu toll doon te yeggaguñu fañ leen di xaar dëgg dëgg dëgg waaye itam ah yoon wi ñu awagu daal daa mel ni teg nañ ko ci yoon muy Ama muy booy Niang sunu làmb ba tey moo xëy tey ñëw ci ñoom ba tey yoof li olof naan mbooloo mooy doole ku ne xam ne écurie yoof mbooloo amoon na écurie yoof kese am waaye léegi nag dañoo nag xool xam ne nag comme ñoo bokk dëkk ba ñoom ñëpp ñu ne kaay leen ñu toog waxtaan ba ñu toogee waxtaan nag lañ ca gis jëlee daal mooy mboole seeni doole def benn écrit muy écurie boo xam ne léegi Yoff tout court la ka ko jiite nag moom moo di Baytiir Ndooy moom lañ nommé moom mooy président ba nga xam ne moom moo ko war a jiite muy ne defe a mën a nekk la parce naa biir Yoff googu defe a am ñu àndandoo liggéey bokk ndey bokk a a loolu moom am na solo trop ba tey waa Lamsaar ah ñu ngay jooy Peraline Diop muy fëgala muy Super Étoile waaw defe naa ne itam loolu moom lu war a mën a nekk la ndax defe naa ne ku ci ne ci ñaar ñii moom taxaw na sa ginnaaw ba tàyyi indi la ci làmb encadré la nga bëree daan mu yóbbu la nga bëre daanu mu yóbbu la kon defe naa tey li ñu wax ci ñoom li ñu wax ci moom ah defe naa ne lu xel mën a nangu la waaw ma yàlla na ko yàlla jéega daal te xare ko aljana record tamit buñ fa demee Grand Yoff mbooloo boo xam ne yàggul de ko sañce waaye boo xoolee 5 ans yu mujj yi moom 66 victoire am nañ mu écrit boo xam ne ah loo ci mën a ñu ngi góorgóorlu loolu nag dañ ciy remercier ku mel ni bëgg fàllu parce que xam nañ ko ci bu baax baax ci Grand Yoff mbooloo ak entraîneur ñoom mobile 1 ña fa nekk ñoom Zarko ña nga xam ne tamit xam nañ ne écrit ba ñoom Ndandi Fall ak xale yi ñoom Fourière ñoom ñëpp di ay xale yoo xam ne daal garaawef mbooloo kuréel la boo xam ne daal ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax keneen koo xam ne tamit mu ngi doon góorgóorlu talaam làmb soxla ko loolu muy paka la donte nag at yi moom xaw na taxaw yëglikaay bi ñëw na ci moom xay ma ko ci victoire am ak ci défaite am ak yooyu waaye mbër la woon moo xam ne daal fi ñu ko doon xaar sori na lool ci làmb mais xëy na nag Euh, jotu gu faa yegg si li ko waral xëy na bokk na ci làmb ji nii mu taxawee yu mel ni ki noonu ak ñàkki komba waaye yaakaar na ne ak bu làmb doxaate war na mën a gën a avancé waaw loolu moom am na waaye dina fàttali tamit ci le 28 ak mel 29 février bi ñu nekk moom bu leen ko jaawale bu ko kenn fàtte waaw fa nga xam ne moom mooy ca Fass Ndiaga ca Gàmbi fa la ñuy tëggee sargal rëg-rëg fa la koy delloo njukkal ak ka nga xam ne moom mooy moo ñoom ñëpp dañ leen di delloo njukkal waaw parce que ku ci nekk tey a ah, am na lu war a tax ñu di la delloo njukkal loolu nag ka koy def moom moo di Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñu ñaan yàlla rek yegg sa ak jàmm di ngeen ci ànd ak Equivox nañ leen ci defal ay reportage yu am am solo ndax loolu tamit defe naa ne lees war a wone la parce que fi mu nekk nii gars yi soxla nañ làmb waaw kon daal den wax ne daal Gambie boobu daal incha allahu rabi Equivox TV ak groupe yëpp dinañ ci ànd ak Fallou Ndiaye incha allahu rabi ci sargal rëg-rëg boobu ak moo get le 28 ba le 29 lu fa xew rek du leen dara du leen ci umb ci ay image ak lu mu mën a doon incha allahu rabi dinañ leen ci demal bu baax a baax di nuyu fàllu Ndiaye di nuyu képp kuy promoteur parce que tamit di wax ne promoteur yi fi mu nekk nii ah wax dëgg yàlla namm nañu làmb amateur yi namm nañ làmb waaye nag mooy loolu daal di ñaan yàlla daal yàlla def jàmm Sénégal waaye di wax tey mention spéciale à wulli numéro un waa doomu bawal boobu doomu reefan ah di ko jaajëfal bu baax a baax gis nga tey eh, li ma sol nii gomis wul li ma ma ko jox te lii wax dëgg yàlla olof ne na dompat sax ci sot la bokk te nag yàgg na ko def ak man ah waaye yàgg na jël ay blouson ay dàll di ma ko jox te nii moom koy defal la koy defale Lamine sama rakk sama seex ba nekk Lutte TV kon wulli encore une fois maa ngi lay jaajëfal di la jaaraama di la wax ne loo mën ren rek déwén yàlla na nga mën lu ko raw barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom nga masha Allah di la bëgg di la ñaanal jàmm di ñaan jàmm Sénégal di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre à travers le monde